Euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu kàddu gi ñu ngi nuyu ñëpp di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm euh, du rafetlu mbooleem ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel kàddu gi fu nu mën di nekk ci alam bi yëpp ba noppi di rafetlu taxawaay yi nga xam ne nit ñaa ngi koy liggéey ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy jottale ci sunu liggéey bu am solo bi nga xam ne ñëpp lañ koy defar hmm, muy firi gént gént nag nekk loo xam ne yàlla sun borom moo ko boole jaam bi mooy ku ci nekk am na lum la bëgg misaal ci ay mbir yoo xam ne amaana mu ngi doxee beneen anam boo xam ne soo ci xalaatee ci wàllu gént wax ku mën a firi mu firil la ko mën nga cee jëlee ay résultats yoo xam ne dana am solo lool loo lay musal ak li lay dimbali. moo tax nag tey ñu ton tànn tomb bu am solo muy tomb bu bari ñu koy jàmbat muy koo xam ne dangaa gént di xeex. xeex nag mooy xitaal eh, xeex nekk lu am solo nag ci wàllu gént bari na nag lu muy tegtale ci ñenn ñi bokk tak sëriñ bi nga xam dafa yor kurus di zikkar ak koo xam ne si karot loolu day wute ak ci ki ngay xeexal ak ci jamono jaga ngay xeexal nit ak ki ngay xeexal ci jamono jooju xeex nag mooy nit koo xam ne daa jàkkaarloog yow di la dóor nga di ko dóor moo xam mu yor ngàndaay wala nga yor ngàndaay ngeen ni fexe ku nekk di jéem a faagagal sa morom ngeen ni rayante ñu wax xeex gént xeex nag nekk lu am solo muy tomb boo xam ne ñu koy waxtaane waaye balaa loolu ñu jaajëfal ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel kàddu gi ak ñi nga xam ne tout le temps dañuy abonné wu ci chaîne bi am na ci ñoo xam dañuy télécharge video yi di ko estati wala ñu koy partagé loolu it ñu ngi leen ci sant bu baax xam ne taxawaay bu am solo boobu ñu ngi ñaan yàlla defal leen tawféex am mboolem ñi nga xamne ay soppe lañ di bayyi xel kaddu fu mu mën di kaa nekk di leen sant ñep ñu ngi jotal nuyoo yoy ñaane ñaané yep si kon yéen tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm bax di ñaan suñu borom defal leen ñu tawfiq defal ñuko kon ak mbolam ñi nga xamne dañuy abonné wu ak ñi nga xamne dañuy partager vidéo yi kon ala kulli halin tay dañoo fassiyene dik ci gënt euh di xex ak nit ki su fekkee ne koo xam da ngay li sahar lo aju ci walu place ngay commerce ngay ñaan yàlla wan la ba xam baax naam baaxul nga gént di xeex koo xam ne sa mag la wala sa rakk loolu dañ lay xamal ni li ngay dugg baaxut ci yow ba ci toppaat tamit danay wane ni bu dee commerce la mën nga cee yàqule wala nga daanoo ci daanu métti boo xam ne sa alal mën nga ko cee perte day tegtal ak ñàkk ak gàllankoor yoo xam ne am na ci euh, bu fekkente ne nag koo xam ne euh, dangay wàcc yoon tukki wala ngay dugg ci projet ci dara nga gént di xeex ak mbooloo te yëg nga ni mbooloo mi ñoo ñoom nga xeexal ñu duma la duma yu metti euh, loolu it baaxut ci projet ci nit ki dañ koy xamal ni loolu muy dugg bu ci duggee mën na cee am jafe-jafe mën na ci am gàllankoor te nekkut loo xam ne gën na ci ay mbiram ala kulli xaalin ba teyit koo xam ne euh, daa gént di xeex ak kum amal jafe-jafe danay doon ñaar nag benn am na ci ñoo xam ne ak jiboo la seen diggante kooku ñuy xeexal te fekk na gudd yooyu dañoo am ak moom problème ñi ak jiboo goo xam nar naa am seen diggante wala ak déggoo goo xam dana am seen diggante ba tey danay tegtale ni kooku mën nay nekk ci ay pexe di ko wajal waajal wala di ko jiima gàllankoor ci ay mbiram loolu danay tegtale ngay gént di xeex ak koo xam ne nga am problème ba tey it koo xam dafa am mbokk faatu koo xam ne yaayam daa faatu wala baayam mu gént di xeex ak moom loolu it danay dog ñaar ci wàllu tegtal benn jëmmi kooku lim nekk guddi yooyu di ko def nekk na loo xam ne waajuram boobu faatu gërëmu ko di ci desaat tamit danay wane ne mu ngi waaj a dugg ñaawteef boo xam ne nekkul lu yàlla gërëm loolu danay wane ni ngay gént di xeex ak sa waajur woo xam ne daa faatu waaye nag tegtal bu am solo muy kopp koo xam ne yàlla natt na la sa waajur faatu même bur daal jullit bi ci nekk war ngay moytu di def mbaa di wax lu amul njariñ rawatina koo xam ne sa waajur daa faatu moo xam sa yaay wala sa baay faatu ngay def lu defuut ndax dañuy wax ne woy faatu yépp fiñ nekk diggante mook àddina jàppale ne vitri la vitri mooy ki nekk ci biir mu ngi gis waaye ki nekk ci biti du gis te yàlla may na leen defal na leen ñi gis li xew ci àddina di fi xam li fi xew loolu yàlla sunu borom moo leen ko defal kon képp koo xam ne am nga yaay wala bàyyi mu faatu yëgal ne la ngay def mbaa la ngay wax la ngay dugg yëgal ne dara ëmb ko ci moo waral bu ëllëgee ngay gis koo xam ne daa faatu nekk ci lëndëm lëndëm gu metti lu ko waral ay doom ak ay njabootam ñun bàyyi ci àddina ñoom jaamun yàlla toppun yàlla ba noppi ñaar luñ ko saraxuluñ ko kooku foo fekk day teg ci ay lëndëm lëndëm ay jafe-jafe kon loolu mbokk yi luñ ci mën nañ ci bàyyi xel ngan la waaye ko am mbokk mu faatooti dee ko ñaanal soo toogee ay bis nga génneel ko sarax ndax loolu njariñ la loo xam da koy ñiital di ko leeralal foo xam ni fa la nekk mu ngi mel ni ci àddina fii ñu nekk ki am moyen pour ut courant taal làmp këram bokk ak ki nga xam ne amul moyen pour wut courant pour mën taal làmp këram loolu jafe-jafe la boo xam ne foo ko ci ak lëndam lay nekk ak ñàkk gu metti ci lay nekk loolu it mbokk yi kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu ko defee tamit eh, mën nañoo jël lu aju ci wàll numéro yi ñi nga xam dañoo aajo wala aju ci firi gént wala seet wala li saxaar firi gént yi nag comme niñ ko baaxoot waxee kàddu gi niñ koy jàllalee nii moom mooy nekk loo xam ni ku ci dégg sa gént mën nga cee jariñ bu dee koo xam nag dafa aajowoo leneen ci géntam bu wootee wala mu envoyé vocal na yëg ne dafa am fay goo xam ne moo wax mooy war ci mbir yi pour mu gën a am solo ndax liggéey bi noonu lay doxee numéro yi mag mooy nekk noonu ci barre d'écran bi 78 443 75 27 78 443 75 27 ñi nga xam ne dañoo ajawoo di numéro yi ñi nga xam dañoo bëgg seet wala si xaar incha allah rabbi bu fekkee nag koo xam ne dangay ngay ab tur ngay xool baax naam baaxut nga gént di xeex bañ duma la duma yi metti loolu dañ lay xamal ne tur woo ngay yor boo ko mënee bàyyi bàyyi ko wala ki ngay riyaada jàppal ni ko am gàllaaj la wala ku am kaaraange la koo xam nag dañ laa jox ay saafara nga di ko sangoo bañ la ko joxee nga gént di xeex ak nit kooku duma la duma yi metti loolu it des lay xamal ne li ngay jëfandikoo ci wàllu kaaraange wala li nga doon jëfandikoo ci wàllu lay musal jàppal ni gàllaay ji des na jàppal ni lam la waroon aar wala lam la war a musalee yëgal ni am na gàllankoor yoo xam ne des na ci ba tax la nga bëggoon mënta sotti alaakulli xaalin Eh, eh, ba tey koo xam ne danga am mbokk mu feebar nga gént gis ko muy xeexak nit bañ duma ko mbaa mu xeex ak nit ba duma ko bu njëkk mi nag mooy xeex ak nit ba duma ko moom bu dee aji feebar la yëgal ni kooku tëraayam boobu ci feebar mën na cee bañ a jug mën na cee jaaree ak faatu wa ilaa balaa jóg ci tëraay bi dana yàgg lool ba tey bu dee daa feebar ba noppi nga gént ko muy xeexak nit ba duma ko dumay metti jóg loolu mënees na lay xamal ni bu deen tawat ji lu metti metti jàppal ne aji tawat jooju dana jugaat doxe ay soxlaam ab diir buy faat doo ko faatu kon ak wér lay tegtale incha allahu rabbi ba tey it koo xam ne dangaa gént di xeex sa soxna ndax bëri nañu koy laaj gént di xeex sa soxna danay tegtal ak jiboo ak yokkute sa diggante ak moom koo xam nag dangaa gént di xeex ak muus wala xaj wala golo wala jaan ndax seytaane yàlla sunu borom subhaanahu wa taala daf la ko may moog rab yi nga xam dañuy soppeeku leen neex la ñuy soppeeku seytaan dinañ soppaliku di xeex di di nekk muus yaa ngi gis ko damaa gént di xeex ak muus képp koo xam ne yaa ngi gént di xeex muus yëgal ne seytaane bu lay yàqal la rab la lu lay gàllankoor ak lay indil jafe-jafe ndax ñoom dañuy soppaxndiku di mel ni muus mbaa ñu soppaxndiku mel ni xaj mbaa ñu soppaxndiku mel ni golo wala jaan kon gént di xeex ak muus baaxut gént di xeex ak jaan baaxut gént di xeex ak buubu golo baaxut gént di xeex ak kañ ak di yi meloon yëpp jaan mën na koo soppandiku kon seytaane yàlla da koo may mu mën a soppandiku noonu mën a nekk muus di xeex ak yow yenn saa gis ku naan damaa gént xeex ak muus mu ñuul kukk loolu yëgal ne seytaane la lu yàqal la lu gàllankoor te muus mu ñuul kukk ay pexe yu sotti lay doon bu fekkente ne nag eh, koo xam ne daa nekk ci néegu sëy tout le temps di gént di xeex ak ay nit. loolu it danay waral ay àndandoo dana koy def rab rab bu lay pexeel mënu yàqal danay waral ngay gént tout le temps di gént di xeex ak am mbooloo su fekkee nag nit ki dangay waaj a dugg ci dara nga ñaan yàlla ni gën wala gënut nga def listixaar gént di xeex ak nit mu duma la ba mën la yëgal ni loolu ngay dugg euh, doo ci am réussir wa ilaa di nga ci jëlee ay coono ak ay gàllankoor ala kulli xaalin loolu lay tegtal incha allah rabbi ba koo xam ne eh, dangaa gént gis ñaari nit ñiy xeex nga gént leen ñu duma kenn ki mën ko loolu it danay doon misaal ci aji gént ji wane ni ki gént loolu alaa kulli xaal ñu ngi koy wan na wattandiku bu baax dana dëgmal mbir moo xam ne pour mu am ci résultat dana jafe dañ koy xamal na gën a wattandiku bu baax a baax ndax ay gàllankoor ak ay pexe la koo xam nag dangay gént di xeex mbooloo mënoo leen mënuñ la loolu danay wane ni ci aji gént ji yëgal ne ay nit a ngi waaj pour di la wàll di la waaj a gàllankoor moo xam ci wàllu baatin ci wàllu kurus wala di la wàllu njabar wala di la wàllu liggéey wala di yàq sa mbir ci nuñ ko mën a defee nañ ko def ñu ngi jéem nag ba son mën naa bañu sotti ala kulli xaalin ba tey it koo xam da ngaa gént di xeex ak sa xarit boo xam ne amoo leen benn jafe-jafe loolu day tegtale ak déggoo ak wërsëgu yaatu wala projet yooyu dugg yoo xam ne yëgal ni boo ci góor góorgóorloo incha allah rabbi liñ ki doon sàkku yàlla suñu borom dana la ko defal ba tey it koo xam ne dangaa gént am kër kër lëmb mbooloo ñi xeex seen biir loolu day tegtale xibaar yu naqari yoo xam ne mën naa am ca kër googu wala xew-xew boo xam ni mën naa bañ a gën incha allah rabbi ba tey koo xam ne dangay sàkku dara tout le temps di gént di xeex ak nit waaye saa booy xeexal ñi ngay xeexal yëgal na ñi lay xeexal ñoo lay mën ci gént gi Lolil it ñoo xamal ni li ngay sakku pour nga jot ci dara jafe bu nak da nga gënt di xeex ak mbolo mo xam ñepp sol lu ñuul yaqku yaqku la ci liggéey boy dugg wa ila jafé jafe yo xam rab dana la ko def wala shaytané mu ngi jëm ay pexé pour yaqal la wala jëm ay pexé pour ko say mbiri bop nam do waron doxe inshallah allah rabbi ba bokk na ci mandarga yi tegtale jafe-jafe muy gënt di xeex ak nit bam jam la paaka loolu bokk na ci mandarga yi wane ne loolu jafe-jafe la ju rëy gàllankoor la ak gàll ak jafe-jafe bu dee koo xam nag da ngay ñaanal nit ci wàllu aajo joo xam ne mu ngi koy sàkku yow mi koy ñaanal nga gént di xeex ak nit ki xeex ak nit ban man la loolu it dees lay xamal ne ki ngay ñaanal aajo ji muy sàkku pour mu jot ci dana jafe way laa dana bëri coono yu mu ciy jànkonteel balaa aajo jee sotti loolu it danay tegtal loolu incha allahu rabbi ba tey bokk na ci liy tegtale wàllu yokkute ci nit ki mooy gént di xeex nit ay nit ñu bari te nit ñoo ñëpp ñi ngay xeexal ku nekk dóor nga ko ba gaañ ko loolu dina tegtale yokkute ci sa wàllu liggéey bi ci tasaat tamit day tegtale ubbeeku bokk na ci gént yi tegtale jafe-jafe nag mooy koo xam ne dangaa gént am mbooloo di xeex ak ñoom ban la ngay daw loolu dinay tegtale benn looy dugg loo xam ne dana am coona wala looy dugg loo xam ne dana am jafe bu dee koo xam ne da ngay listixaar lu aju ci wàllu soxna ba tey it nga gént di xeex ak nit bañ duuma la loolu it dañ lay xamal ni sëy bu bari coow lay doon sëy bu bari jafe-jafe sëy bu bari ay gàllankoor yoo xam ne mën na ci am incha allah rabbi ba it bokk na ci xeetu gént yoo xam ne day tegtale jafe-jafe moom it ngay listixaar lu aju ci wàllu tukki dem ba fa nga war a ñaanee visa gént di fa xeex loolu it bokk na ci xeetu gént yi wane ni. li ngay dugg li ngay soobu pour sotti pour ñaan yàlla mu sotti yëgal ni gën a gut yow yëgal ni gàllankoor la lay jural ak ay jafe-jafe ba tey bokk na ci li nga xam ne di gént di xeex lu bari ndax am na ñoom dañu naan tout temps damay gént di xeex su ma yeewoo sama yaram bi day metti loolu nag gént la goo xam ne rab moo koy def ndax rab daa mën a soppaxndiku comme nit yàlla may na leen ñu mën a soppaxndiku comme nit loolu xeeti gént yooyu yëpp wàllu rab moo koy def ngay gént di xeex ci guddigi tout le temps te boo yeewoo damay yëg ne yaram bi yep day metti lolou gënt la yo xamne rap mo koy def shaytané mo koy def pour yakal la ndax du koy firndeel mooy tout temps ñi ngay xéxal ci gënne gi duñ doon ben moy tay tay nga gënt di xeexas yaay suma gënt gént di xeexas sa tante suma gënt di xeexas sa borom kër yu yep xéti misal la koy def benen bi ci topat moy eh, go xamne amagut soxna gënt di loolu it dañ koy xamal ni li muy sàkku ci wàllu soxna soosu lu mën a sotti lay doon waaye bu góor góorgóorlu lam ci wut mën naa bañ a demee noonu mën naa bañ a sotti ala kulli xaalin ba tey bokk na ci gént yoo xam ni mooy gént di xeex ak police gént di xeex ak police baaxul day tegtal ay pexe yoo xam ni ay nit mën nañ koy waajal pour jëmee ko ca kaw wala ay gàllankoor yoo xam ni mën naa jógee ci ay nit jëm ci si yow ba tey bokk na ci xeeti misaal yi ba tey koo xam ne dangay liggéey aw tur. Euh, ba ci yàgg ngay gént di xeex ak ab muus wala sayt wala jaan xeeti yooyu yëpp day wane tur bi ngay liggéey baax na waaye saytaane mu ngi dox pour yàq la saytaane mu ngi dox pour gàllankoor la mu ngi dox pour indi la ay pexe yoo xam ne pour nga bañ a eggal tur bi loolu dana koy def ba tey it koo xam nag hmm, dangaa gént xeex ak nit mu man la loolu it aajo ju yéex faju moo koy def waaye tout le temps koo xam ne day gént di xeex ak nit te ku muy gént di xeexal moo koy man loolu it na ko wóor ne kooku lu mu dugg bu góor góorgóorloo yàlla mën na koo sottal wala lu muy wut bu góorgóorlu yàlla dana ko sottal waaye koo xam ne dangay gént di xeex ak nit ku la ku la jege boo xëyee ci yaram bi di metti yégal ne loolu gàllankoor yooyu wàllu rab moo koy def nit ki jafe-jafe la yoo xam ne wàllu rab moo koy wan nit ki am na ci nit ñoo xam nag nuñ koy géntee mën na demee noonu waaye ñenn lan ci nit ki am na ci ñoo xam buñ géntee di xeex buñ xëyee dinañ gis ku ni xeexal waaye li ci ëpp ci mbooloo mi gént di xeex ay jafe-jafe moo lañ koy def wa ilaa ay pexe yoo xam ne ay nit mën nañ koo waajal wala ay gàllankoor yoo xam ni mën naa jógee ci ay nit ñëw ci ñoom yooyu yëpp ay xeeti mbir la yoo xam ni wàllu gént di xeex dana koy def bu dee nag mm, dangay gént ki nga doon xeexal mën la ba ci yàgg yow tamit nga mënaat ko loolu it moo lay xamal ne di nga dugg ci mbir moo xam ne di ci am yaakaar ba muy sotti nga dem ba ci biir mu am jafe ba tey bokk na ci mbir yi ala kulli xaalin euh, gént di xeexak koo xam ne dangeen am jafe-jafe euh, loolu it ñenn ñi danay doon ci ñoom ak jiboo comme niñ ko waxee woon sànq ñenn ñi am ñoo xam ne ay pexe yoo xam ne mën naa jóge ci ñoom pour jëm si si yow kon lii lépp ay tegtal la wala ay takk-takk yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la ci koo xam ne mu ngi koy gént waaye li ci ëpp moom gént di xeex ak mbooloo ay pexe ak ay gàllankoor ak ay jafe-jafe yoo xam ne mën naa gaar aji gént ji moo koy def kon loolu it lu mat di bàyyi xel la baax kon yii nii yëpp yoo xam ne danay gaar ñenn ci mbokk yi ñoo xam ne dañ koy géntee ci anam yi waaye tout le temps saa boo xam ne yaa ngi tàmbali dara wala bëgg dara gént di xeex ak ay mbooloo yëgal ne li ngay wut pour ma jot dina jafe bu dee sëy la sëy la boo xam ne dana bëri coono lool bu dee place la place la boo xam ne boo ci duggee tamit réussir mën naa des bu dee aajo tamit aajo ji balaa faju da sonn lool bu dee tukkal tamit kazalika noonu tukki la boo xam ne dana yéex dana bëri jafe-jafe dana bëri gàllankoor ak ay pexe yoo xam ne mën nañ ko ciy def moo tax lool it lu mat di bàyyi xel la bu baax a baax muy gént di xeex ak ci anam bi nga xam ne yaa ngi toll foofu di am looy lijjanti wala di am looy sàkk wala di am looy bëgg pour yàlla sottal ko kon ci anam boobu ci ngay xam ne tegtal boobu tegtal bu mat di jàppale bu baax a baax. kon ñu ngi ñaan sun borom defal ñu tawfiq bu baax baax di ñaan yalla mi nga xamne moy mooy borom faj aajo yalla yalla yàlla faj suñu aajo yalla faj aajo yi mbooleem jullit yépp yàlla defal ñu tawfiq yalla defal ñu gudd fan ak mboolem lo xam ñu ngi koy xam mu nekk njariñ rek yalla na nekk njariñ lo xam ñun ñëpp koy maase jariñoo di wax wassalamu alaikum wa taala wa barakatuh